am public kon tey bu ñu dee séddale bu ñu ko def séddaleem bukki bii njur bii sàmba bu ñu ko def dama bëgg bu ñu dee séddale ñu def séddale boo xamante ne nii bu équitable la xam nga fan lay waxee waa Excaf Télécom dañu toog pendant onze mois sans salaire mhm. journaliste yi am nga information bi muy mhm. DTV RDV entre autres mhm. ñu toog onze mois am problème mu salaire Africa set kañ nga ko gëj a déggati mhm. mais média yooyu noonu yëpp fi nekk ñoom ñoo gën a yeyoo ñu jox leen ay convention suqali ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñii liggéey te yàlla rek tax te soo bëggee visibilité boo fa jaaree am visibilité mais ñooñu dañ leen a bàyyi ba ñu sol ndox ci nguur gi nga xamante ni moom moo di nguuru Macky Sall gi fi nekkoon su ma tuddee média classique yi c'est mhm. parce que kërub liggéeyukaay bu mel ni bu dee jàllale publicité bëgg ku ko wekk am na feneen fu ko war a mën a jàllale lu dul ci ay sinap yu ñaaxarañloo ak yenn sit internet yoo xamante ni bëgguma tudd seen tur parce que tojuñu fenn defuñu buzz ku leen dégg ci lan nga leen déggee. mais quand même c'est yoo xam ne ay Sénégal ñoo fu ne di liggéey tamit. si doole je pense que tamit contrat yooyu tamit. lu baax ci ñoom lay doon. xam nga ay congolais nekkuñu fa. xamuñu contrat boobu ñu ci amoon tey ji am ay millions fii. parce que a ngi liggéey. yéen a ngi liggéey di def information boo xamante ne information bu mucc ayib la di def ay émission yoo xamante ni yéen a ngi ci yee askan bi loolu kenn bañalu ko kenn mais dama ne dafa am tierce personne ci ñoom ñoo xamante ne dañ leen kaa jox te yoyoowuñu ko néew ma ñu jox ñëpp a bon de. Uh-huh. écoute-moi très ni dafa am tierce personne yoo xamante ne dañu nekk ci biir convention yi bénéficier wu ci convention bi te waruñu ko woon a bénéficier woo. comme ñaan. wax naa la ko sànq comme ñaaxarañ loo lan la mën a apporter l'ONAS en terme de visibilité. mais xam nga xam nga de sànq yaa ngi wax euh, kenn ku si nekk ak sa public peut-être ñaa am na public boo xam ne mën na faa yóbbu image l'ONAS. Mhm. Euh, boo demee ci média classique yi am nañu public boo xam ne peut-être mën nañu fa euh, defal communication agence bu mhm. je pense que ne c'était pour diversifier kenn ku si nekk ak xam nga Babacar yow ngi yaa sa bopp léegi léegi ñaa li mu yor muy compte TikTok ak compte Snap. yow sa chaîne bii nii am na TikTok am na si Snap kon lan moo tax mérité wu ñu woon tey ñu indi ko de DKR 221. dafa am ay parties am seeni nitu bopp ñoo xamante ni mooy li ma la wax séddale mbukki la yaa ma neex dañu la koy jox parce que yaa ñuy jàppal tànk yow yaa ñuy saagaal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci ku jeeg politique gi convention yi loolu la nduru yenn ci convention yi du ma wax lépp parce que du lépp moo bon nit ki waruloo nekk un nilis su amee lu baax taxawal duut baaraam ne lii baax na mais bu amee lu bon oseel génn taxaw duut baaraam ne lii bon na dafa am ñoo xamante ne dañ leen doon koy jox mu mel ni comme genre may boo xamante ne dañu leen kaa jox parce que tojuñu fenn du ñoom ñoo lay génnee sa produit visibilité bi nga bëgg. d' accord xanaa bi ngay bi ngay bi ngay njëkk addu jëm ci ci ci ci contrat yu nu mel. Mhm. da waxoon lu weesu li nga wax fii nii ba tax ku mel ni Tange Tandian. Mhm. Euh, génn ak kàddu yi nga xam ne yëg na ko teg ci gàllu ko sa ndodd. Mhm. Tange Tandian bëgguma woon a sax revenir at ci moom bëgguma ko woon. parce que en tant que chroniqueuse dama toog def sama émission développé comme fii li ma ci développé. tudd turam. ku mel ne Tange Tandian ku mel Trois Pommes lan la ñu war a mën a liggéey fii ci Sénégal ba ñuy yëkkati ay convention di ko signé ak ñoom parce que d'après les informations jox nañ ko ci à hauteur de huit millions Tange dal di jékki-jékki woo ma téléphone ba ma woowee téléphone ne ma ba dara moo ma jox sa numéro de téléphone fekk bien avant Aline Badara c'est un confrère ma respecté ko bu baax ci dëggoom ak sincérité am Aline Badara dafa ma envoyé message ne ma Binta dem Diallo Tange Tandian mooy demande sa numéro ma ne ko Tange mu ne waa ma ne ko jox ko Tange daal di may woo téléphone ma envoyé ko message ne ko maa ngi émission ba ma njëkkee woo jëluma ko parce que boobu dafa am kilifa gu ma toogaloon. Okay. mu woowaat ma ci ngoon gi fekk maa ngi émission ma bind ko message ma ne ko damay émission su ma paree dinaa la rappeler. puis puisque wax naa ko ko su ma paree dama koy woo. moo gën a correct parce que xaw ma lan la may doyee ma pare woo ko téléphone mu ne ma coupeel ma woo la ma coupé Tange Tandian woo ma téléphone commencé dama toog ñu yónnee ma benn vidéo boo xamante ne da nga ci toog di wax sama tur ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko kan moo la yónnee vidéo bi mu avancé nangoo cee nangoo cee développé. muy benn or que c'est archi faux bi mu ngi nii su ma paree dinaa la ko envoyé moom moo toog di ma seetaan moom Tange Tandian ah. moo toog di ma seetaan kenn envoyé ko video bi parce que tojul fenn gi ma ko waxoon dama ko koy waxaat tojul fenn kenn du dagg sama vidéo di la ko yónnee parce que Tange tojuloo fenn soo paree nag nga tontuwaat ma ma tontuwaat la muy benn ñaar Tange harcelé ma commencé di ma intimider ci sama liggéey c'est-à-dire cest waruloo loo xamul waroo cee wax di ma yuuxu di ma harceler ma ni ko mais attends Tange yow yaay kan ba information bu génnee convention ya ñu signé ca LONASE yow duma la ci tudd te ñu tudd ci Tange Tandian lan moo tax duma la ci tudd fu ñu demee ba tudd ci leeral TV ne am na ci 35 millions ñun en tant que taskatu xibaar ñu toog di def suñu liggéey di informer li nga xamante ni nii askan bi war nañ kaa mën a yëg Tange taxaw daal di ne man duma ko tudd ñu waxante fa man ak moom li ñu fay waxante lépp parce que gudd na li mu doon bëgg amul mooy dañu foogoon ni nguur gi fi nekkoon moo fi nekk ba tey tiitalaate intimider nit ki. mu daal mu daw toog toog ci ruqam. fan lañu mujjee moom moo mujjee dem ba énervé coupé parce que lu mu wax benn ma tegal ko sañ-sañ mu ne ma amuloo information bu baax da nga juum parce que xam naa ne kii ñàkkul ne mu ngi may enregistré ma ne ko juumu ma information bi ma joxee c'est clair et palpable. mu daal di ne ma nekkul ni man maa signé convention bi mu avoué de ne nekkul ni moom moo ko signé mais structure bi nga xamante ni moom moo ko jiite. ñooñu ñoo siñe ñoo siñe convention bi. Mhm. wax ma ba joxaale ma sax plus d' information xamal ma ne ma moom c' est un sénégalais buy employé huit personnes li muy employé tuuti na trop. bu fekkente ni nee nga boîte nga yor huit personnes moom lu tuuti la jéem kaa yokk léegi ñu jox la huit million au détriment des médias yoo xamante ne nii dem nañu fay land ba sol ndox. nguur googu fi nekkoon mu ngi taxaw di leen seetaan man ak moom ñu waxante waxante waxante mu ne ma waa ok parce que li mu doon jéem du jàll li mu doon jéem napp intimider nit ki du jàll après mu coupé man ak moom li ñu fa waxante yépp mais tey am ma grande surprise mhm. dama toog. ñu envoyé ma vidéo boo xamante ni moom Tange Tandian nee na liggéey na ci réew mi dara tekki na ci réew mi dara yaa toogoon di ko seetaan tamit. non non tooguma di ko seetaan parce que man aw ma jotam. heure boobu sax sama heure liggéey la parce que maa ngi waroon a présenter journal ñu envoyé ma vidéo bi Tange Tandian di wax ci man dem ba Sénégal set toog daal di ne Binta Laye Gueye madame Diallo woo naa ko la vidéo c'est c'est c'est tourné en au Sénégal Sunugal 24 ah la dem tourné fa li nga xamante ne ne moom moo di vidéo bi te Tange warta woon a dem Sunugal 24. pour quelle raison. waa neena moom dafa xew dañu kaa xam mu am site internet am di ci liggéey lan moo tax sortie bi defu ko ci site euh, internet am agence de communication la am nee na moom la wax ne moom la yor. waaye benn société. VIP euh, de communication benn société waaye da déglu ma laaj la VIP people kan moo ko moom Tange Tandian moo ko moom ma jox la information VIP people moo ko moom jarul woon sax ma koy defal publicité parce que VIP kenn xamu ko. kenn xamul VIP. ah moom nee bu am visibilité. amul benn visibilité kaa la fay tereete Tange Tandian toog dem ba suñu gaal 24 toog daal di ne mu ngi jël sama der bi di ko joobe xamuñu lu ñuy wax benn xale bu bëgg buzz la benn xale bu nàngam la kenn xamu ko da Tange Tandian tu as raison kenn xamuma xam nga lu tax Babacar. Mhm, Tange ni mu siiwee bëgguma kaa siiwee. Tange na mu siwee yor agence de communication yor site internet am di liggéey. soo nee tekk ma wax soo nee tekk soo nee tekk rek. Mm-hmm. ma wax la nan la Tange siwee. allez yow lay déglu. barki Dembo Ndiaye problème am ak Ouzin Keita fi la ñu fekk ci wàllum góor jigéen kon ñaanuma yàlla siiw ni Tange siwee ca Bercy ba da nga may tëddee ak duma la tëddee coowal Tange Tandian fii la ñu fekk muy benn ñaar. Tange Tandian ay audio yoo xamante ni da doon kaa di jëw di topp ci deru nit di ko yàq jabaram ji muy fanaanool subaak ngoon guddeeg bëccëg moo ko enregistré génnee audio yi mu toog carrément confirmé ca Seneweb daa dina dëgg la audio yi moom moo ko def Pape Diouf dàq la Waly Ballago Seck ne bëgguma la Youssou Ndour dematoo fa Sidi Diop xalab la. ah moom nee na si siwal na ñooñu ñëpp. ñi mu siiwal ñëpp dàq nañ ko ndax ay nettali ak ay mensonges yoo xamante ni dara du ci dëgg kon man yow Tange dawoo sama yaram dëgg la nag man siiwuma kenn xamuma tojuma fenn mais yow ni nga xewee ak ni nga siiwee bëgguma ko ñaanuma yàlla xewee ni nga xewee ñaanuma yàlla mel ni nga mel parce que su ma demee ba man jigéen tey. daa mel ni la Tange wax ni si woo naqar naa nag Binta de. waaw daf maa naqari kañ. <laughs> xam nga daf ma naqari ma parce que Tange ci jëmmi boppam moom mi naan man siiwoo moom ni mu siiwee bëgguma kaa siiwee moo tax ñàkk bañ a siiw gi mu wax ma ko mu naqari ma <laughs> xam nga dereetu gor boo amee nit ki looy jomm am looy bañ gone goo xamante ni fa mu juddoo fa la màggee fa la déggee alxayri fa lañ ko takkee muur ko ci kër jëkkëram yóbbu ko fa mu sëyi sama jëkkëram a gaare moo gaare oto wàccee ma nii ma toog di def émission su ma paree damay wàccaat ndànk mu yab ma yóbbu ma mu ma lool ma naw ko lool kenn du ma jiiñ ne ma diwa doon lay tëddee. non xam nga xam nga ay maa ngi ñëw Babacar mën nañu koo tuumaal ku ne. maa ngi ñëw moom dañ ko kaa tuumaal ba ay audio génn ci reste à savoir ba xam Ouzin Keita xale bu jigéen ba lañ ko waxal góor jigéen laa du góor jigéen ñooñu ñoo ko ko waxal te moom noonu la siiwee muy benn du mën a siiw parce que du ma góor jigéen du ma lesbienne du ma caga jaayuma sama bopp yoruma kart milieu bii doon na millier bu sensible boo xamante ne nii loo ciy def na ko xam parce que ñëpp xamante wàllu micro gi mhm. ñëpp xamante kon tey boo waxee ba fëgg sa dënn mhm. ndaxte yow la Tange Tandian minimiser Bintalaay Bintalaay mi ngay minimiser de kenn du ko tudd ci coowal góor jigéen kenn du ko tudd ci coowal xaalis kenn du ko tudd ci coowal caga kenn du ko tudd ci coowal lesbienne yii kenn duma ci tudd siiwuma parce que damay xëy def sama liggéey tranquillement pare dem sama kër toppatoo sama jëkkër ak sama doom kon Tange Tandian je suis désolé lii mooy wax ju neex ji sama digganteeg yow te dama ko bëgg a wax mu dégg ma moom Tange Tandian mu nekk une première et une dernière fois nga yëkkateeti sa téléphone boobu composé sama numéro woo ma téléphone boo ma woowaatee man ak yow yoon moo ñuy àtte parce que sama liggéey bii may def du Tange moo may intimider dañu foog ni nguur gi fi nekkoon moo fi continuer nekk ba tey nguur goo xamante ne nii dafa am ñu koy jàppal tànk am ñoo xamante ne nii bu ñu waxee ñu ne leen ràpp ci kaso bi parce que waruñaa wax am ñoo xamante ni dañuy génn ñu jox leen xaalis ñu dem li seen ceeb daggal Ousmane Sonko ak waa kër Ousmane Sonko ak li nga xamante ne nii moom moo di waa Pastef loolu mooy jeex fii ci diwaanuk Sénégal ma wax appel nag laa la lancé directement yow Tange Tandian sama numéro de téléphone boo bëggee jàmm te jàmm rek di jàmm supprimer ba mu set boo bëggul jàmm te bëgg leneen mën naa dindi sama sër bi woddu la ko nga woddu man ak yow ñu rëkkante ko ci suuf si ba mu neex nga xam ne dawuma dara. ah parce que dëkk bi foofu la toll. jarul mu yegg foofu. dina fa yegg xam nga lu tax. Hmm. bu tooñ jeexul fayu du jeex bu tooñ jeexul. fayu du jeex te mën naa kaa abal sama sër bi mu woddu ñu taxaw def jëflante ko mën ak moom. yaa ngi tooñ de. non Babacar bul ne ma yaa ngi tooñ Sénégalais xamul ko tooñ ku fayu la xam. ah non mais mais bul yegg ci euh, jox sama sër mu woddu. ci kaw mu jeexal ko rek bu ko jeexalu rek. Hmm. man jigéen laa moom nee na góor la reste à voir. Euh, tey. Tange li mu wax mooy. yow da ngaa bëgg a wax ci moom. parce que siwoo te bëgg nga ñu xam la moo tax nga jël ku mel ni moom nu ñu xam ko ngi ngay wax ci moom ci jëmmam euh, li mu wax ne amoo ay information laataa ngay ngay wax danga doon wax loo xam ne xamoo ko est-ce que jar na wax ji di di di yegg fu nu mel. Euh, ba yoon di ci war a am wàll wala di di di di. xam nga Tange bu ma taxé ne ma amuloo information bu ma ko taxé am naa information information bi mooy moom Tange Tandian dafa bokk ci ñi nga xamante ni LONASE octroyé nañ leen ay convention mu jot ci montant boo xamante ni toll na ci huit million wala dafa bëgg ma génn ne ko Tangelo loolu du dëgg te information boobu noonu am naa ko wala aw ko muy information bu ma wax bu fekkente ni c'est pas vrai na ma yóbbu ci yoon. moom il a confirmé contra bi. moom mu confirmé ko wax ak man téléphone confirmé contrat bi. waaye yow tey DKR mën ngaa toog di ci liggéey ñu daal di ne patron bi signé na convention ca LONASE tudd ci turam mu toog daal di ne du man waaye boîte bi nga xamante ni maa ko jiite la. Tange na bàyyi yabaate na bàyyi xelam mi muy coqotaan te toog ñu waxtaan en tant que des sénégalais te li ma bëggoon ci information moom daf ma kaa confirmer ba wax ma nombre de personnes bi nga xamante ne nii employé na leen kon kay moom démentirul li nga xamante ne nii moom moo di information bi. li muy toog naan siiwuma du ci moom lay siiwee wax naa la ko sànq man ni Tange siiwee bëgguma kaa siiwee Tange Tandian ni mu siiwee. bëgguma kaa siiwee ndax man bëgguma Sénégal fii ñu dendale ma ak lenn loo xamante ni dafay nduroo góor jigéen muy benn bëgguma ñu dendale ma ak lenn loo xamante ni kii ñun ñoo koy jox xaalis pour mu saagaal ñu nit muy ñaar bëgguma di wax ngir ñu yoral ma sama dund bëgguma di wax ba sama borom kër di ma enregistré di génne audio yi te moom soxnaam dakaa enregistré génne audio yi bëgguma ñu lay tudd ci li nga xamante ne nii moom moo di ay sos ay kàcc yoo xamante ni teguwul fenn bëgguma ñuy tudd sama tur di ko tudd ak dara lu ñaaw moo tax Tange Tandian moom ni mu siiwee faawuma ko ci nawuma ko ci tey dawut sama yaram te ma yàlla siiw comme ni mu siiwee tëyit lan mooy siiw ak soo siiwee loolu lan la la mën a jural ay nit di la woo naan laan saagaal ma diw nga leen koy saagaal xasal ma diw nga leen koy xasal. loolu sa wax la. loolu ko. non man du ma siy mooy dafa liggéey ci réew mi taxawal. Euh, agence am communication marketing communication. lan la fi liggéey yor la fi moo ko may contrat. lan la liggéey toog di kaar loolu liggéey la toog di kaar nañ leen respecté ñii di ñu seetaan nii nañ leen respecté Sénégal dañaa woote li nga xamante ni moom moo di ab changement Sénégal war a changer ñu ne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. kon tey moom warut a mën a taxaw naan lii laa liggéey Sénégal di ko bàkkoo te liggéeyul dara Sénégal ndaxte kaa du liggéey ànd ak artiste diw maa xam diw maa nàngam diw ñépp tëjal la seeni port ndax nettali ak i sos loolu du liggéey na seeti ji leneen loo xamante ni daf koy tuddee liggéey ñu ne lii la ñu tuddee liggéey mais moom li mu nekkee du liggéey te kenn nawu ko ci te man mii nawloowu ma ko. agence de marketing communication du liggéey. dama ne agence de marketing et de communication bu fiable loolu liggéey la. ah boobu demee bay am euh, entre contrat ak euh, une agence publique wax dëgg fi yàlla mën nañu. jàpp convention yow mii sax ci yaama neex gi mën ngaa toog léegi nit neex la daal di signante ak yow convention. dafa am convention yoo xamante ni mérité na ñu tudd turu convention am convention yoo xamante ni kaay ma jox la xaalis la nga may saagaal diw loolu mooy fi nekk. ki doon présenté émission bi sax dem na ba ne da nga doon wut buzz ci temps. waaw ki doon présenté émission bi nag moom su ma dee wut buzz moom mu ngi wut buzz parce que c'est la première fois ma gis ko. te Babacar à chaque fois ni ma koy waxee ñun ñi yor micro di wax. Mhm. xam nga lan moo tax xeebante gi di bari ci ñun. parce que ñun ñoo wegantewul kenn ku ci nekk respecté woo sa moroom te it manque de solidarité daf cay feeñ. manque de solidarité xam nga nan la ciy feeñee. Mhm. mooy nga toog ak sa nawle. toog di wax ci ginnaawam wala nga toog di lekk ci ginnaawam boo demee ba ni yor nga micro di présenté te sab nawle ñu tudd ko muy présenté ni yow am na benn comportement boo xamante ni war nga kaa yor mais moom daa dem ba doon paa weexee kaw weexee suuf ma koy soog a xam di ko soog a gis. dara naqariw ma ci àddina <laughs> man man daanaka Babacar der laa li may naqari bariwul ah non bii moom dugg na la sa. Euh, siiwoo bi li xale di wax. naan Tanzania mi wax ni siiwu ma moo ma naqari parce que dama koy xamal ne ko moom ni mu siiwee man bëgguma siiwee ni moom loolu laa naqari na ma parce que. nit koo xamante ne tekkiwul dara taxaw naan man siiwoo ak moom ni mu siiwee man bëgguma kaa siiwee loolu rek mooy li ma ci naqari mais du leneen loo xamante ne naqari na ma ci. mais le fait que tey euh, contrat yooyu au delà de Tange Tandian am na ñeneen ñoo xam ne am nañ ci tudd nañ ci ma Jambal Diagne ay studio Fall ak yeneen yeneen i structure mm-hmm. mais divulguer ko divulguer ko devant la dans la place publique mm-hmm. ak somme yi nga xam ne moo nekk ci contrat yi mm-hmm. est-ce que jaroon na ko parce que moom sax moom sax dem na ba ne euh, manque de professionnalisme ci ñi nga xam ne tey ñoo ñoo ŋànk sunum réew parce que à sa précision moom ci lu mu wax. Mhm. mooy suspension temporaire la te suspension mu ngi war a intervenir le 31 août bi nga xam ne moom lañ dëgmal ce qui que ba léegi contrat mu ngi en cours. Mhm. xam nga euh, mooy li ma la wax nañu respecter sénégalais yi ñi ñuy seetaan dañ leen a war a informer juste et wax leen li nga xamante ni nii moom moo fi nekk. convention yooyu dañuy génne lépp def ko carte sur table du manque de professionnalisme dañu woote rupture woote jub jubal jubbanti ku ne jub jubal jubbanti da ngay génnee lépp nga def carte sur table sama maam bi nekk au fin fond du Sénégal nekk Fongolemi mu jot ci information yi gis nga droit à l'information kenn waru ko privé benn sénégalais sénégalais bu ci nekk dañ la war a xamal ne la lii moo xew bërëb sàngam lii moo fa xew ñëpp yam même niveau d'information bu ko defee su